ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mbokk yi nuyu nañu leen ziar nañu leen ñu ngi ñëw ci suñu émission yawmal jumaa äh, xam ngeen ne ajuma ju ci nekk ñu dem ci jenn jumaa taatan la fay bàyyi ko jottali ko doomu aadama yi tey nag ñu ñëw fii ci jumaa yi Castor jumaa ju mag ji ànd ko ak imam Pouy ci booru ginnaaw marché bi rek äh, fekk fi Khalifa Mbaye ak Babacar si ñoom ñi nga xam ne ñoo taxaw ba ñu ñëw incha allah bu ñu ñëwee itam danañ taataan li nga xam ne mooy nodd yi jël bayaan yi mooy wax bi ñuy wax ci olof jël itam li nga xam ne mooy xutba bi ci arab ak imaam bu ñu noppee nag toog daal di julleendoo ak ñoom bu ñu jullee ba noppee nag toog def jataay boo xamee ni commission jumaa yi ci ñoom lay lay aju fan la ñu jëlee jumaa ji nan lañ ko defaree fan lañ ko jëmee incha allah danañ ko dégg ak waa jumaa ji loolu yi la ñu bëgg àndandoog ak waa jumaa ji incha allahu taala ànd ko nag a Lamine Ndiaye seen xarit Alxaaji Ndiaga Seck comme euh, Ibou Cissé bu bàyyi ma nga ca bër nu euh, fas yéene dugg ci jumaa ji Lamine taataan li fiy bàyyi ko rek ànd ko ak waa jumaa yi Kastoor fekk fi imam puy kon ñu dugg ci biir.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد ربنا حي على الصلاه Allah danga koy waajal ndax boo amee gan goo fonk danga koy waajal fastabiqu bil xidba wa surur nañu bég sant yàlla ndax weer wi lakk bàkkaar yi mu ngi ñëw ramadan mooy lu tàng jir mooy lu tàng mooy fuur fuur yi boo ci defee mburu buy dugg doy tooy waaye boo génnee rek moo konk loolu mooy ramadan mooy gël loo xam ne lu ci dugg rek mu lakk la loolu mooy weeru koor bàkkaar boo ci def mën na ko lakk nga set wecc di xaaral beneen waskuro laa nañ di fàttaliku sant yàlla di fàttaliku waaye di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jox gan gu màgg gi muy weer bi ñu tuddee saw ramadan muy weeru koor ramadan mooy pour tàng jër loo xam ne lu ci dugal ak mooy ramadan mu ne ñu góorgóorlu ci suñ jëf bu koor jotee ñu yokk suñ jàmm yàlla yokk suñu yiw lépp loo ci def rek dañ koy ful wa maa diinu ko luy sa diina al islaamu diini islaam mooy sama diina wa maa kitaabu ka lan moo nekkoon sa téere loo doon jàmm yàlla nga ne alquranul karim kitaabi alquran boobu nag weer mu wàcc muy weeru koor mooy ñëw weeru alquran mooy ñëw bokki ñu góorgóorlu baax bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel suñu borom ki lay bàyyi xel da nga koy bàyyi xel eh, li ci des mooy bés bii di àjjuma bu dellusee ci kàttanu yàlla bàyyi moor Gueye suñu kilifa suñu bàyyi dafay am ay jàng ci koñ bi at bu nekk dana ko def àjjuma ji ñëw incha allah ñu ngi koy yëgal ñëpp parce que carte yi mattalewul waaye bàyyi moor Gueye fu mu toll ci ñun benn carte sax bu duggoon ci jumaa ji rek doy na kon bàyyi moor Gueye jàngam bi mooy def at bu nekk. ajjuma ji ñëw ci la ko fas yéene taxawee ñu ko yëgal mbooleem jullit yi ñu ko yëgal ñëpp parce que yëfi islam la yëfi diina la eh, ñeemale fii imaam mu ngi ñëw mottali ci des allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fati lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa nasir aq bilaq wal hadi ila siratika almustaqim wala alihi xaqa qadri mi xidaar asim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallah جعل لعباده مواسم يتقربون إليه فيها بأنواع الطاعات فيغفر لهم الذنوب ويرفع لهم الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله حكم فقدر وشرع فيسر ولا يزال يفيض على عباده من أنواع البركات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحافظون على طاعة ربهم في جميع الأوقات ويخصونها بمزيد من القربات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوه فالإسلام يدعو إلى السماحة والرفق في المعاملة فيقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري إذا فاتق الله أيها المسلم فاتق الله في جميع شؤونك من كل الأوقات وفي رمضان وكن مع الله يكن معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وبلغنا رمضان وانصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك العليا إلى يوم الدين يا ذا القوة المتين اللهم اجمع اللهم اجمع قلوب المسلمين على المحبة واحفظ في أوطانهم وشعوبهم الأمن والأمان وادرأ عنهم بحولك وقوتك عوادي السوء اللهم اللهم ارع ولاة أمورنا بحسن رعايتك وجميل توفيقك واجعل الأمة الإسلامية في كفالتك آمنة من العثرات ظافرة بالمنى وباعدا وباعد بيننا وبين نزغات الشر الشيطان واهد إلى الصواب رعاة الفتنة وخذ بناصيتهم وخذ بنا جميعا إلى دينك الحق وهدي كتابك المبين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين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 السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaaraat leen niñ leen ko waxee woon ci commencement bi rek ñu ngi fii ci jumaa yi Kastoor jumaa ju màgg la nag jumaa ju mag yoo xam ne imaam Baba Touré ak mbooleem mag ñi fi nekkoon tabarakallaahu daan ko taxawee ba ci imaam puy mii ak sunu imaam bi nga xam ne moo jiite tey mm-hmm. euh, tabarakallaahu xam naa du ma sori mm-hmm. ñu ngi nekk ak euh, sunu xarit al oustaz mm-hmm. euh, Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw sunu xarit di sunu sëriñ di sunu mag di sunu lépp fekk fi itam mboolem mag ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci jumaa ji boo ko defee ginnaaw julli nañu ba noppi commission jumaa ji itam ñoo ngi fi du ñàkk ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam ne bëgg nañ koo biral ndax jumaa am na fu ñu ko doore am na fu ñu koy fu mu toll am na fu ñu ko bëgg a yóbbu te loolu yëpp dafa am lu koy def ndax jumaa du yegg néegu yàlla la su ko defee du ma sori damay jox imaam bi nga xam ni mooy imaam puy mu ubbi rek ñu daal di dugg nag ci ñeneen ñi ñu war a jox kàddu incha allah. mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. di bég ci toogaay bii ñu toog fii li ñu sumba yàlla na yegga ci jàmm te ñu fekk ko ci jàmm yàlla du wàcc nag defar ko ñun ñoo koy defar comme ñoom ñu ñun ñoo jóg pour defar nañu góorgóorlu ba li ñu wax ñu taxaw ci ñun ñëpp lii TFM defal ñu ko ñu ngi sant bu baax di suñu lépp nag yal na yàlla dooli sutura comme nee nañ une lañu am ñu jox ñu def ko ko noonu rek jàkk ji imam Babou moo fi nekkoon bu mu fi jógee Thierno Seydou taal nekk fi bu ñu fi jógee suñu bàyyi Gallo Diagne nekk fi bi mu fi jógee Ibrahima Pouy mii waxaa yéen ñu tekk fi noonu ñu def nag ba dem loolu ñu def ñun ñëpp ba dem Mamadou Pouye fekkewul parce que dafa feebar lépp moom la woon. ndax jataay la boo xam ne wax dëgg yàlla li ko tax a jóg moo di feeñal liggéey bu ñu jëmee ci yàlla mu di jàkka ju nga xam ne ussisa ala taqwa ci ragal yàlla lañu ko fonde looloo taxoon alaaji Abdou yal na yàlla yokk leeram joxoon cër jàkka ji lool ba masjidu rasul bi li tax defu ko juma bàyyi xel jàkka ji moo tax waaye bàyyi xel itam suñu kilifa gu màgg di al imaam alxaaji Baba Touré ci taxawaayam imaam wax na ko léegi nee na tabaarakallaahu moo fi nekkoon bi mu fi jógee itam wéy juru Abdullahi Taal mii jiite moo fi nekkoon doon góor gu baax goo xam ne géewal na ma fii ay waxtaan ngir xam ne jàkka la koy doxal moo di xam-xam al madarisu qabla al masajid macha allah mu bàyyee ñu doom joo xam ne tey ku ne sa xol sedd na ci xutba bi ak alquran ji mu jàng yal na ko yàlla dëgëral te rafetal ndono li kii toog di Mamadou ture doom la ci alxaaji baaba ture mi ñu fi tudd léegi te itam mooy taawam bu góor macha allah kon dafa mel ni daal eh, mag ñi bi ñu demee itam jëmm yaa dem rek waaye seeni ruux seeni maanaa yëpp ñu bàyyi nañ ko fi tabaarakallaahu moom itam bu la jiitee rek sa xol sedd tabaarakallaahu kon gàcce ngalaama mag ñi ñoom def nañ seen wàll ñun nag xamuñu ndax daañu def suñu wàll wala déet kon kii nga xamante ni moo leen fi wuutu gannaaw mag ñooñu moo di alxaaji Gallo Diagne tabaarakallaahu moom itam chaque année danañu organiser fële benn waxtaan maak euh, alxaaji Mamadou Pouy ñoo koy taxawee imam Mamadou Pouy nag mënuñoo yëkkati kaddu ci jàkka ji te turam baamuñ ko ay yooni yooni yoon ndax liggéeyam ni mu rafete ni mu yaatale macha allah ñun ñi ñëpp cër bu ñu am ci jàkka ji ci loxoom la ko yàlla jaarale mu yaatu lool tabarakallahu yal na yàlla guddal fanam yokku wéram delloo si waat ko ci jàkka ji feebar nag dafa bokk yi nga xam ne yàlla daf koy faral di nattoo ñamu sopp tabaarakallaahu moo tax Cheikh Sidi Hadji Malick si bis toog na ne waaw gëj naa feebar de mbaa yàlla daf maa jëppi ndax yàlla ñi mu bëgg ñëpp daf leen di teg nattu benn ci seen alal wala ci seen yaram wala ci seen njaboot kon nattu bu yàlla na ko yàlla woyofal sàmmal ñu ko gën a yokkaat fan wi delloo si waat ko tabaarakallaahu ci mbooloo mi ah, bi fi eh, imam Gallu jógee suñu wayjur bu baax wi moo fi nekk di alhaaji Ibrahima Pouy moom itam wax dëgg yàlla moom la yàlla teg ci bopp bi wante yaatu gi ñu gis ci du Pouye moo ko ko jàngal ndax moo ko yar mooy magam ubbeeku gi yéwén gi mbaax gi makaarimul axlaax gi tabaarakallaahu damay wax ne kastoor eh, rab bi fi nekk eh, rawxaan bi fi nekk rawxaanu waliyu la ndax nit ñu baax ñëpp ko xemmeem ku fi ñëw rek nekk doomu daara da nga fiy yaatu mais doo fi xate kon gàcce ngalaama yéen ñi yàlla jiital wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na eh, ñuy gërëm nag Njaga Sekk mi nga xam ne wax dëgg yàlla alxaaji Njaga Sekk yàlla ñu boole taxawaayam mooy jàkka yi dama ne seddoo na cër boo xam ne jar na séddoo yàlla li mu moom mooy jàkka yi wa annal masajida lillaahi kon su fekkee ne moom dafa jóg pour siiwal jàkka yi jàkka ju ñu xamul sax dana la luqati ba ñu xam la tabaarakallaahu kon moom itam mu ngi liggéeyal yàlla yal na yàlla barkeel liggéeyam tabaarakallaahu euh, mu am nag point bu am solo boo xam ne moom leen bëgg a waxtaanee ndax li ñu am ci minute bariwul te am na ñeneen ñu war a jël kàddu moo di ne jàkka ji dañ ko bëgg a defaraat te liggéey bi dafa laaj xaalis bu bari dafa laaj itam taxawaay macha allah kenn ku ne nag la la yàlla may ca loolu rek nga mën a taxawee. ñu woo ci ñëpp nag ni yonent bi wootee woon ca masjidu rasul ba mu koy tabax yéene woon saxaaba yëpp jàmm yéene leen yool mu ànd ak ñoom tabax jumaa ja ba mu taxaw te ku ne xam na ne man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna képp koo xam ne tabaxal nga yàlla jàkka yàlla tabaxal na la kër ci aljanna te kër ci aljanna mooy aljanna ju dul jeex ay hectares yu dul jeex tabaarakallaahu kon loolu mayu yàlla la aljanna dañu wax ne kenn du ko liggéey yàlla la koy may moo tax yàlla tuddee ko ataan xisaaba safara nag ku fa dugg yaa ko jëf moo tax mu mu suñ borom tuddee ko an wifaqa kon nag nanu góor góorlu ci wàllu yàlla dërëm bu ci waay dugal lu mu néew néew néew néew néew mën na la jural ngërëmal aljanna mbooloo mu tedd mi yàlla dogal ñu teew fii tey jii ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu xaq tey baali xaq di rafetlu jataay bi bu baax a baax a baax a baax nuyoo yi nag dañ koy teg ci yoxo imaam ratib El Hadj Ibrahima Pouy mu joxal ñu ko képp kenn ku fi teew képp kenn ku amoon yéene teew fi te nga am ngànt képp kenn sax ku fi teewul di sant di gërëm El njaga sekk mi tey si suba rek yaakaar naa laa la mujj déglu si euh, si waa waa waa Thiénaba tey suba su nekk yàlla xam na bala may ñëw fii dinaa la déglu kon nag yàlla na yàlla yokk sa wér sa wéru sa wéru xel sa wéru xol sa wéru sa wéru yaram ba liggéey bu am solo bii ngay def wax dëgg fa yàlla mu amal njëriñ ñoo xam ni yow mënoo ko sax xalaat e yàlla fekk ko ba mu sore sore sore castor li ñi ma jiitu wax castor rabu àll la c'est un animal mais particularité castor mooy ñoom dañuy dëkk en communauté mbooloo la ñuy def doo gis mu castor nekk benn wala déedéet mbooloo mu takku la ñuy def te mbooloo mi dafa am discipline dafa am disipline dafa am jàppoo ak jàppalante moo tax kastoor lu mu song daan ko rab boobu dañuy wane ay ay garab yu nga xam ni ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu toll mais kastoor yi buñ ko songee soo gisee ni ñu koy def ba daaneel da nga xam ni wallahi yàlla rek ay karim kon nag kastoor si loolu lañ ko fondé benn lañ benn lañ benn lañ fii El Hadj Ibrahima Pouye mi ngi nii kër gu nekk mag ñi maanaam moom seen kër sama kër la ñun suñu kër këram la Seydou Ndiaye ngi nii Doudou Fall a ngi nii ak ak ñi fi ainsi de suite donc Castor noonu lañ ko tabaxee euh, ñuy dem di dem ba yeg si fii yàlla dogal ñun ñu euh, tombe si lii kon nag liggéey bi nga xam ni sumb nañ ko man day du damay faral wax ñaan yàlla ñaan du du du du may ma yàlla kenn du ko ñaanee noonu may ma mais yàlla bi mu lay def nit ñaanoo ko ko te amul lu gën a for nit nit ki maanaam comme ni ko yàlla waxee ni ko yàlla waxee yarfaillaahu alladina amanu minkum walladina utal alma darajaat ku nekk maanaam am nga sa wàccuwaay koy jël sa jë di ko suuf rek am nga sa wàccuwaay bi nga xamante yàlla moo jox si ay alquran bi kon ci gàttal wax ji gërëm ñëpp tamit en ñi nga xamante ñoo nekk suñu ginnaaw ñuy jàppale si mbir mu nekk ay bilaal yi ñoo nekk si gannaaw imam yi ñoom te macha allah seen taxawaay rafet na lool si jumaa waaye tamit ñi nga xamante macha allah lépp si lu leer si firnde yu lu leer nañ si lañ koy teg comme ni ko imam Ndiaye waxee sànq kon alhamdulilah ñu joxe ñaan bi tëj ko su fekkente ne waaw jërëjëf Cheikh imam imam Ibrahim Pouy daanaka comme ni ñu ko waxee woon rek lépp loo gis rek. mu baax mu rafet ne la wóor na ne am na ay ñaan yi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw ñoo si dox mu nekkee suñuy kilifa ñi nga xamante ne yàlla ñi fi génn àdduna yàlla yàlla yërëm leen yokk seen leer waaye ñi nga xamante ne ñu ngi suñu biir di dund dox ñun tamit di soox chaque fois di ñëw si jàkk ji si jumaa ji waxtu bu nekk ñu ko ñëw di ko jullee fii mu nekk ñi nga xamante ne ñooy suñu Pape si Cheikh euh, suñu wayjur euh, euh, Ahmad So mm-hmm. noonu tamit ak Babacar Pambay Dem mm-hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne jaax ak maanaam ñëpp mun lañ compter ax góor gi Guèye wax dëgg yàlla dañuy rafet seen taxawaay. jërëjëf mbokk yi jërëjëf itam ñu ñu àndaloon jërëjëf itam waa jumaa yi Kastoor dégg nañu liggéey bu màgg boobu nga xam ne moom lañ liggéey moom la fi mag ñi bàyyi woon Eh, ca taxawaayu nag imaam baaba Touré yal na yàlla yeesal yërmandeem ci barke yonentu beeg mag ñi mu ko àndalan ñëpp ñi fi des itam yàlla sàmm leen imaam ma ngi insisté ci loolu ngir ñu ñaanal mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi desandi tey dund yàlla yàggal leen te dëgëral leen wéral seeni cër barke yonentu bi alayhi salaatu wasalaam Cheikh Ahmed Tidiane jërëjëf moom sunu oustaz la sunu xarit la daanaka noo noo bokk sax kuréel yi nii yi nii yëngoo noo koy bokk saa su nooy nekk ci aajowoo jàmm eh, mu ca am taxawaay bu am solo fa mu nekk ci bitim réew itam noona rek la fa nekkee di fa liggéeyal yàlla Euh, xam naa ni li ñuy métti rek mooy émission yi ñu daan am te mënuñu koy jotati loolu rek moo ñuy xaw a kon nag mbokk daal di jéem a tàggoo rek ñaanal leen yàlla jàmm di leen tàggu ba ajjuma ñu jox imaam mu ñaanal nu ngeen ñaanal tam borom kër gi yàlla defal koy ndam ci euh, lii dagg jox ko lislaam te it amut dara lum ci sàkku def ni rek nañ ko defal yàlla tey ñor na ñëpp teg ko ci loxoy ay rakam buuba ak njagam yi nga xam ne moo aman initiative émission bi am ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ñaan yàlla ba ajjuma sunu wëlëre wi nga xam ne Habib mbay euh, Habib euh, Mbaye mi nga xam ne dafa génn àddina démb rek euh, muy Habib fay Habib Faye di ñaanal nag Habib fay mi nga xam ne dafa génn àddina barki demb rek tabaarakallaahu bokk ci nun bokk ci liggéey bi di wëlëree di rakk ci yuusu yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ndax ci nun la jóge kon nag fu nu teew ci yu mel nii dañ koy ñaanal yàlla di leen jox rendez-vous ba àjjuma ak jàmm ñu tàllal imaam ñaanal nu jërë ngeen jëf fatix salaatul fatix lixlaas ñetti yoon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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات